tey <clears throat> fii ci siège u FRAPP euh, di gërëm euh, membre secrétariat exécutif euh, national bu FRAPP ak yeneen membre FRAPP yi nga xam ne bokkuñu ci secrétariat exécutif national yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte pour euh, ñëw fekkee euh, waxtaan bi waxtaan bi nag euh, jàmm la tey alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre mooy ñaari semaine ginnaaw bi nga xam ne génn naa kaso bu Sébikotane tey mooy exactement deux semaines jour pour jour bi nga xam ne génn naa ci kaso Sébikotane au niveau du FRAPP ñu jàppoon ne Euh, yoon la ginnaaw euh, li xew yépp ba euh, mobilisation sénégalais yi tax ma génn le 14 octobre passé ñu wax ak sénégalais yi waaye tamit tey mooy cinq mois juróomi weer jour pour jour pour jour bi nga xam ne juróomi membre FRAPP yi nga xam ne agressé woon nañ leen fële ca Nianing déposé nañ plainte ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane le 28 mai 2021 exactement le kenn ci suñu avocat maître Khoureyssi Ba déposé plainte bi ngeen xam ne euh, dossier bu mag a mag la moom la ñu déposé ci section de recherche gendarmerie bu Colobane donc deux mois ginnaaw bi ma génnee kaso cinq mois jour pour jour ginnaaw bi ñu déposé plainte bi à la gendarmerie de Colobane ba léegi plainte bi juragul dara euh, balaa maa sori ci waxtaan bi gërëm mbooleem sénégalais ak ñi nekkul sénégalais nekk fii ci biir Sénégal ak ci diaspora bi yi nga xam ne mobilisé wu nañ ngir naxarlu métitlu ñaawlu li nga xam ne moom la teg sama kaw ba mu jur le 14 octobre bii passé ñu génnee ma euh, kaso euh, Sébikotane féexal ma di leen di gërëm euh, ñoom ñëpp yéen ñëpp sénégalais yi nekk fii ak yi nekk bitim réew yi nga xam ne bind nañu wax nañu yuuxu nañu mobilisé wu nañu mënuma nag lim ñépp ndaxte askanu Sénégal mooy naan ku lim juum te comme bugguma juum te xam naa ne ñi mobilisé wu am na si ñoo xam ne xam naa leen am na si ñoo xam ne xamuma leen ngeen jéggal ma ci bañ a lim bi ngir ñëpp gis ci seen bopp waaye ci cant ak ngërëm yi nga xam ne mënuma koo ñàkk def mooy gërëm ak sant avocat yi nga xam ne ñoo mobilisé wu ngir ñu am résultat bi nga xam ne am nañ ko muy maître François Senghor muy maître Youssou Camara maître Moussa saar maître Assane Dioma Ndiaye maître Amadou Diallo maître Tall ak maître Khoureychi Ba muy kon juróom-ñaari avocat yi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati seen baat juróom-ñaari fan ci weeru octobre jamono ji nga xam ne ñu ngi nekkoon ci palais de justice bu yóbboo ñu wax palais bu amul justice euh, xam ngeen euh, lépp li nga xam ne mais xewoon na ci dossier bi naa si fàttali euh, lu tuuti rek euh, fii lañu jóge jógee di dem participer manifestation ci Pacour département bu Vélingara région bu Kolda arrondissement bu Kounkané askanu Pacour ñoo ñu invité ci manifestation boobu ndaxte dañoo jël seen junni hectare suuf. mille hectares jox ko benn doomu Sénégal benn doomu Sénégal euh, bu sant Sall euh, ñu xamee ko bu baax a baax Tambacounda fi nga xam ne am na fa ay toolu banaana mu bëgg a def ay toolu banaana fële ci Pakour ñu jox ko junni hectare waaye junni hectare yoo xam ne askan bi nga xam ne moo juddoo yeewoo Pakour amu ko junni hectare yoo xam ne juróom benn dëkk ci junni hectares yi sax la ñu bokk maanaam yàlla na yéex euh, góor gi sàll bu génnoon àddina tey euh, ay euh, ay doomam mun nañ ne ah ñun donn nañ ci suñu bàyyi junni hectare te seen juróom-benn dëkk yi ci junni hectare yi la nekk ci kanamu yoon bu ñu moytuwulee ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci juróom-benn dëkk parcours yooyu du ñu am dëgg donc ñu dem pour participer ci doxu ñaxtu ngir ñaawlu li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu depuis ay at muy mafia foncière muy gangstérisme foncier muy banditisme foncier maanaam jël suufu sénégalais yi di ko caxat caxatee di ko jox borom doole yi nekk fii ci Sénégal di ko jox boroom doole yi nekk bitim réew bi ñuy dem nag euh, ca Vélingara ca Pakour ñu gisoon nañ ne li wër suñu kër. amoon na ay policiers en civil xamaloon nañ ñu itam ndaxte Sénégal ku am ay mbokk kenn mënu la jëw kenn mënu la fexeel itam te doo ko yëg suñu ay mbokk yi nekk ci biir état bi ñoo ñu xamal ne ah ñoom xamaguñu lu xew waaye weekend bii de euh, du du jeex te teguñu loxo ci ñun te état du Sénégal tegul loxo ci ñun. ñun bi ñu yëgee loolu donte xamuñu woon lan moo tax ñu ñuy rëbb rëbb boo xam ne kenn rëbb ko Bougazelli mi nga xam ne dañ ko jàpp loxo ci poche ci wàllu trafic de faux billets rëbb boo xam ne kenn rëbb ko euh, Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur mi nga xam ne moo doon wax ne jënd na ay ñebbe bi mu nekkee jamono euh, directeur COUD kilo ñebbe quatre mille kenn rëbb ko ñi nga xam ne ñooy toje alalu askanu Sénégal te lim bi gudd na duma ci lim mbay Prodac ñaa duma ci lim Siré mi nekkoon xawma poste duma ci lim ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li nga xam ne moom la ñu def duñ ci lim ñi nga xam ne euh, euh, seen tur waxoon nañ ne dañu yóbbu CREI yi te bu weesoo ki nga xam ne mooy euh, Karim Meïssa Wade ñeneen ñëpp dañ leen bàyyi. donc donte ñu ñu doon rëbb ñun waa FRAPP dañoo ne suñu activité suñu yëngu-yëngu duñ ci soppi dara donc dinañ dem Kolda continuer suñu ay yëngu-yëngu bi ñu demee nag egg nañ Kolda dem nañ def manifestation boo xam ne dañ ko interdire dañ ko tere ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ñu jàpp nag ne réewu Sénégal mafia foncière bi moo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañuy xeex cëxët cëxët bu ñuy cëxëtee suufu Sénégal trafiquant de faux billets trafiquant de drogue yi trafiquant de faux médicaments ñoo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp askanu Sénégal ñi nga xam ne benn crime rek benn ñaawteef rek la ñu def mooy aar li nga xam ne lu ñëpp bokk la te li ñëpp bokk bokk na ci suufu Sénégal ñu tere manifestation bi mais terewul ñun ñu dem ci manifestation bi bi ñu demee ci manifestation bi gendarme yu bëri ñu mobiliser leen ñun waa FRAPP ñi nekkoon foofu ca Kolda ñu ne ak gendarme yi ñu mobiliser ci Sénégal ak information yi ñu jot mënuñu ñibbi Dakar te dara duñu dal et yoonu Kolda ba dakaar bëri na si ay dëkk yoo xam ne amul réseau bëri na si ay dëkk yoo xam ne seen diggante mun nga dox fukki kilomètres wala juróomi kilomètres doo am réseau doo gis dëkk doo gis nit ñu ne balaa ñoo dellu ba dakaar dañuy dem gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation donc ci lañu dem ci gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation pour ñaawlu li nga xam ne interdiction bi nga xam ne état du Sénégal tere na ko manifestation pacifique pour ñaawlu itam euh, gendarme yi ñu yi ñu mobiliser bi ñu demee ci gendarmerie bi dañoo toog tuuti yeneen gendarme yu jóge feneen ñëw teg ñu loxo je crois que samay mbokk frappe yi nga xam ne jàpp ñu leen woon expliqué nañ loolu bu baax a baax bi ñu tegee loxo dugal ñu ci auto gendarmerie juróom benn auto gendarmerie daanaka moo ñu jëlee Koungkané yóbbu ñu Vélingara juróom benn auto gendarmerie yoo xam ne auto bu nekk amoon na lu mu néew néew néew fukki gendarme gendarme bu nekk solu mel ni Robocop yore seen i fetal yore seen i ngànnaay yore seen i casque mel ni ku nekk guerre benn nit donc bi ñu demee gendarmerie Aliou Gérard Koita la woon Boubacar euh, Diallo Ousmane Wade euh, mais personne morale du FRAPP suñu njiit ak man ñeenti membre FRAPP ñoo dugg biir gendarmerie ñu bàyyi ñett ñëpp. jël ma dugal ma ci auto gendarmerie yóbbu ma Vélingara ak comme ni ma ko waxee euh, juróom-benn auto gendarmerie bi ñu eggee Vélingara ñu jébbal ñu police des frontières police des frontières jël moom itam otom dugal ci ay policier yóbbu ñu commissariat bu Tambacounda bi ñu eggee commissariat bu Tambacounda ñu toog fa xëy na fanweeri minute commissariat bu Tambacounda jël ay agent am dugal ma ci ci oto yóbbu ma commissariat bu Kaffrine bi ñu demee commissariat bu Kaffrine waa dikk bu dakaar ñu fa doon xaar defuñu fa waxtu ñu jël ma dugal ma ci auto dikk ak ay agent dikk yóbbu ma indi ma Dakar euh, donc mu mel nii diggante Kolda ak Vélingara lu mat bu ko ëppul téeméeri agent des force de défense et de sécurité dañ leen mobiliser ngir rek jëlee ma Kolda indi ma fii ci dakaar moonte de président Macky Sall xam na ne waa FRAPP xamuñu tiitange xamuñu ragal il aurait juste fallu que ñu wooñu wala ñu envoyé ñu message nañu vous êtes convoqué à la DIC pour que ñu ñëw et donc la question qu'on se mooy lan moo tax ñu mobilise lu ëpp cent

force de défense et de sécurité yi agent yi nga xam ne ñoo nekk ci police gendarmerie ak armée ak ñoom seen fi ñu leen war a mobiliser mooy ci yitte askan wi mooy ngir kaarange askan wi mooy ngir sàmm kaaraange askan wi et no képp ki nga xam ne ànduloo ak li nga xam ne président Macky Sall moom lay def ci réew mi ñu mobiliser ko ñu euh, ñu jàpp la ñu tëj la donc noonu laa ñëwee dikk li ci des dégg ngeen ko euh, diffusion de fausses nouvelles euh, tentative de discrédit d'une institution de la République foog naa ne dégg ngeen samay avocat li ñu wax ba su procès benn amul benn xibaar bi nga xam ne man joxe naa ko ñaar gendarmerie bi ñuy naan institution la gendarmerie boobu article six bu constitution bu Sénégal mooy lim li nga xam ne moom la ñuy woowee institution ci institution yi constitution di lim ci article six gendarmerie bokku ci article six dina lim président de la république ak gouvernement article six dina lim justice maanaam yoon dina lim assemblée nationale dina lim Euh, les cours et tribunaux ak ñoom seen waaye amul fenn ci constitution fu ñuy naan di lim les institutions de la république ñu lim gendarmerie donc ça veut dire que euh, tuuma yi nga xam ne moom la ñu teg ci sama loos amul benn bu ciy dëkk benn du nouvelle ba ñu naan fausse nouvelle la wala vraie nouvelle la ñaar d'accord du institution ndaxte gendarmerie du institution li am mooy rek dañoo bëggoon sonnal FRAPP dañoo bëgg a tuumal FRAPP dañoo bëgg a tiiñal FRAPP dañoo bëgg a néewal doole FRAPP dañoo war a dañoo bëgg tiital képp kuy aji bëgg a réew fii ci senegal maanaam patriote maanaam résistant bëgg la tiital bëgg la xoxatal yoon bi ñu jaarale ko ci man waaye du dara ci tuuma li nga xam ne dëgg la je crois que citoyens sénégalais yi fàttali nañ ne euh, Bougazelli fii la wax ne la gendarmerie est corrompue man euh, waxuma lu mel noonu ba léegi kenn convoqué ko ba tax na sama baat ca kaw la devise du Sénégal mooy un peuple un but une foi ci président Macky Sall devise boobu dañ ko transformé deux peuples deux buts am ñoo xam ne bu ñu defee ay tooxi duuna toje alalu askan wi sàcc suufu askan wi këpp kees dara du leen ci fekk xëy na bu leen ci dara fekkee promotion la ñuy am maanaam boo jëlee ku mel ni euh, Cheikh Oumar Anne jóge directeur di COUD ñu nome ko ministre ñenn ci ñoom sax ñoo xam ne tey jii nii ñu ngi naan ñoom ñoo nar a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yii di ñëw mu am beneen Sénégal boo xam ne mooy Sénégal ñi nga xam ne d'accorduñu ak président Macky sàll ni muy doxalee ci réew mi lu ñu wax ñu jàpp leen lu ñu wax ñu tëj leen lu ñu wax ñu buntu xatal leen lu ñu wax ñu rëbb leen et pourtant saagawuñu et pourtant sàccuñu et pourtant tojewuñu deux peuples deux buts deux fois boobu foog ñu soppi ko le président Macky Sall est devenu un danger dans ce pays-là le projet c'était un peuple un but une fois ñëpp ñu yemale leen ñëpp ku ci tooñ yer bi dal sa kaw waaye li am mooy ñi nga xam ne dañoo sës rëkk ci président Macky Sall bokk ci président Macky Sall bu ñu sàccee ñu seetaan leen bu ñu tojewee ñu bàyyi leen bu ñu luubalee ñu am promotion suñu classe gi nag bu ñu critiquer ñu jàpp leen bu ñu marché ñu jàpp leen dama leen di fàttali ne jamono yële passé am na juróomi manifestation yoo xam ne ñoom noo lànk yaana FRAPP Africa First urgence panafricaniste ak ñoom seen bëggoon nañ ko organiser contre la vie chère maanaam dund bu cher bi juróomi manifestation yoo xam ne dañ ko interdire léegi daal ngir aji bëgg réew boo demee manifestation ñu jàpp la tëj la boo waxee ñu tëj la boo bindee ci sa page Facebook ñu tëj la ba pare di la jiiñ loo xam ne dara du ci dëgg euh, waxoon naa ko fi li nga xam ne moom màndargaal saytuwinu président Macky Sall ñett la saytuwinu président Macky Sall ñett moo ko màndargaal benn bi mooy toje alalu askan wi ñaareel bi mooy toj këru askan wi mooy toj ak ak yelleefu askan wi mooy toj les valeurs et les vertus du Sénégal ñetteel bi mooy tëj moo tax ma koy woowee Macky toje toj tëj bu ngeen xoolee lépp li nga xam ne moom la ñuy lépp li nga xam ne moom lañuy ñuy ñett yii mun na ko tënk toje alalu askan bi moo xam alalu géej moo xam alalu suuf moo xam budget Sénégal moo xam wurusu Sénégal toje alalu askan bi toj lépp lu baax ci Sénégal ñetteel bi képp ku xeex képp ku ñaaw lu naxarlu toje ak toj bi ñu toj la euh, loolu nag du mën a continuer loolu nag ñun mënuñu continuer euh, di ko di ko seetaan euh, def naa fukki fan ci kaso bu Sébikotane fukki fan yooyu amul dara lu mu wàññi ci suñu détermination ci suñu dogu ngir xeex ngir beneen Sénégal amul dara lu mu ci wàññi tey la waalo gën a ay ñun sax dañ ci am mbégte lu tax ñu am ci mbégte mooy bi ñuy tëj fii ci màkkaanu FRAPP fii ci siège u FRAPP yéen taskatu xibaar yi xamoon ngeen ne amoon na ay enseignants ay jàngalekat yu ñuy woowee animateur polyvalent des classes des tout petits yi nga xam ne def nañ fi ay fan ngir naxarlu juróomi at fukki at yoo xam ne def nañ ko ci case de tout petits te kenn recruté wu leen kenn formé wu leen te kenn fayu leen xam ngeen ne biñ may tëj FRAPP dafa fatoon fii ci makkaanam ay jàngalekat yu ñuy woowee les enseignants des classes passerelles yi nga xam ne formé nañu lu ëpp fukki junni élèves yoo xam ne mosuñu dugg école wala dañoo duggoon école génn si te ñu bokk ci un million cinq cent enfants yi nga xam ne nee ils sont en dehors du système scolaire lu tax ma ne donte tëj nañ ñu fukki fan dañ ci am mbégte mooy jàngalekat yooyu ak ànd bi nga xam ne ñun waa FRAPP ànd nañ ci ak ñoom am nañ ci ñaari ndam benn bi mooy 32 enseignants ñu leen di woowee animateur polyvalent des cases des tout-petits ñoo fi nekkoon ci 32 yi recruté nañ 31 fanweer. wala lu jege fanweer ci enseignants des classes passerelles ñoo nekkoon fii ñenn ñi sax entamé woon grève de la faim yaa ngi ni fàttaliku bés bu ñu waxee ne dañuy marche jóge fii dem ministère de l'éducation nationale ca Diamniadio ñu jàpp leen fii ci koñ bi dix yi nga xam ne jàpp nañ leen bés boobu ak benn membre FRAPP muy Aliou Gérard Koïta mi nga xam ne moo jiite FRAPP département bu Kolda dix yooyu nee nañ boole nañ leen ci formation bi donc jamono yi may wax ak yéen. 31 animateur polyvalents euh, des cases des tout petits muy jàngalekat yooyu di jàngal tout tànk yi 31 yi ñu ngi Kolda di subir formation ngir formation boobu ngir formation boobu euh, buñ ci paree ñu am statut benn ñaareel bi ñu commencé di fayeeku loolu lan lay wane askan wi loolu lan lay wane ñun doomu Sénégal mooy li waa FRAPP di tàmm di wax seule la lutte libère métti na nag yombul ndaxte yenn saa yi nga am si garde à vue yenn saa yi nga mëkk si grenade lacrymogène yenn saa yi nga dem ñaaniñ ñu la fay toroxal ay nervi di la fa agressé yenn saa yi nga dem Médina Wandifa ngir jàppale collectif de défense des intérêts de Médina Wandifa yiy xeex spoliation foncière foofu ci Médina Wandifa ngeen di def conférence ñu sànni leen xeer ba ay gendarme di di escorter pour ngeen mun génn ca dëkk ba yenn saa yi ñu dóor leen ay liif yenn saa yi ñu agressé la physiquement c'est l'occasion pour man également waaw ma wax leen ne am na loo xam ne euh, def nañ ma ko ci mbir mi boo xam ne maa ngi koy naxarlu daanaka lépp lay naxarlu ndaxte ba tey jii nii Je suis choqué, indigné, même si je ne suis pas surpris, que dans un pays comme le Sénégal, dans mon pays, au XXIe siècle, que je sois arrêté, gardé à vue, emprisonné, jugé pour avoir donné mon opinion. diggante Vélingara ak Tambacounda cent kilomètres plus précisément quatre vingt kilomètres biñ ci euh, auto gendarme yi nga xam ne ñoo ma jëlee Koungkané balaa ñu may dugal ci auto police des frontières dama ñëw ñu ne ma sa loxo ma joxe sama loxo ñu kepp ko ak ak mënut bon ma ne garaawul c'est pas grave ma naan déet ñu ne ma ci ginnaaw ma ne leen déet bu leen ma bu leen ma mënooti ci ginnaaw parce que ku xam mënooti ci ginnaaw xam nga ne dafa metti donc dañ ma mënoote ci ginnaaw ma ne leen mais yéen même Bougazeli du ngeen ko mënoote ci ginnaaw même Cheikh Oumar Anne du ngeen ko mënoote ci ginnaaw même Mbaye Prodac Niang du ngeen ko mënoote ci ginnaaw luubalkatu alalu askan wi du ngeen leen mënoote ci ginnaaw donc man lan moo war a tax ngeen mënoote ma ci ginnaaw ba pare ma war a def cent kilomètres cent kilomètres yi ma def diggante euh, Vélingara ak Tambacounda mooy cent kilomètres yi gën a métti yi ma def sama àddina ndaxte déjà mënatu ci ginnaaw pour ñi nga xam ne dañ leen mës euh, mës nañ leen mënatu ci ginnaaw xam nañ du mu safee mais en plus boo ci boolee nga xam ne goudron bi goudron bi euh, nooyul donc oto bi day daal di tëpp ñu mënatale ni nii ci ginnaaw kenn toog sa fii kenn toog sa fii sës la rëkk yow tu presque assis sur tes propres mains yow daanaka da nga toog ci say loxo ak ci mënati sur cent kilomètres Euh, depuis boobu sama sama baaraam bi maa ngi sentir ça fait plus de deux semaines ça fait allez bientôt un mois je crois d'accord maa ngi sentir mel ni sama loxo bi mu ngi crampe depuis boobu sama sama pouce sama pouce droit xam naa ne bu continuer nii un jour je perdrai l'usage de mes mains ou je perdrai l'usage d'un de mes doigts loolu daf may indi ma gën a interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy les agents des forces de défense et de sécurité man liñ ma def mënoote ma ci cent kilomètres boo moytul noonu la ñuy defee ñeneen sénégalais ba tax ñuy dee ci commissariat yi wala ñuy dee avant ñuy egg commissariat parce que xamuñu ndax man dama as xamuñu ndax man mus naa def AVC xamuñu ndax man am naa problème respiratoire xamuñu ndax man mus naa am problème boo xam ne le fait d'être menotté sur cent kilomètres mun na jur inconfort boo xam ne d'accord mun naa si def choc donc damay interpeller pas ñëpp nag parce que gendarme yëpp bonuñu policier yëpp bonuñu militaire yëpp bonuñu agent euh, des eaux et forêts yëpp bonuñu waaye am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne ni ñuy doxalee moo tax ay Pape de des commissariat bu Thiaroye moo tax Elimane Touré dee commissariat bu port moo tax euh, Seck Ndiaye ñu rey ko ci néegam dóor ko ba mu dee et cetera et cetera donc nañu xoolaat ñun policier du Sénégal ñun gendarme du Sénégal ñun militaire du Sénégal ñun douanier du Sénégal ci tënk ñun agent de forces de défense et de sécurité nañu xoolaat naka la traité citoyen sénégal yi rawatina citoyen sénégalais boo xam ne jamono ji ñu koy jàpp di ko menotté sur cent kilomètres il était encore présumé justice bu Sénégal nee na daf ma condamné euh, trois mois de sursis ba pare fay deux cent mille francs CFA samay avocat lim naa leen sànq ma leen di gërëmaat dugal nañ appel donc li ma bëgg Sénégalais xam mooy justice ku mu condamné bu defee appel appel bi day suspendre condamnation bi donc day mel ni condamnation bi amagul ba keroog bànqaas bi gën a kawee ci yoon ci Sénégal ne neexul ba neexul condamné maanaam condamné nañ ko bu boobaa d'accord ma mun a fay deux cent mille bu boobaa ñu mun bind sama casier judiciaire ne Euh, voilà mus nañ ma juger ba àtte ma ba daan ma trois mois de sursis damay fàttali itam euh, bi may nekk kaso yenn saa yi ma gis yenn taskatu xibaar yi naan Guy Marius Sagna encore condamné 2014 euh, ak léegi lu ñu may jàpp jàpp jàpp jàpp yépp ak waa FRAPP yépp musuñu ñu àtte c'est la première fois ñu ñuy àtte ku ñu musul àtte nag naka lañ ko mën a condamné arrestation yi ngeen di dégg yépp waaw dugguma ci ñaata la parce que pour man du loolu moo am solo waaye yooyu ñëpp xam ngeen ne ay dizaine la arrestation yi ngeen di dégg yépp c'est la première fois guléet juróom-ñaari fan ci weeru octobre ñu ñuy àtte loolu dafa am déjà lu muy tekki mooy ñoom ñi ñi ñuy jàpp xam nañ ne li ñuy jàppee du tus du dara waaye bii li am mooy troisième candidature baa ngi jege si li am mooy élection locale baa ngi ñëw li am mooy 2024 mu ngi jege il foog ñu fexe ba tiital képp kuy aji bëgg réew képp kuy aji bëgg askan ci Sénégal donc Tambacounda 2012 2013 lañ ma jàppoon ak neuf enseignants juróom-benn jigéen ak ñetti góor. muy enseignant yoo xam ne dañoo defoon ay dix ans ay huit ans ay six ans te kenn fayu leen waaw boobu itam atte woon nañ ma mais condamné wuñ ma donc bii mooy la première condamnation mais quelle condamnation une condamnation injuste ndaxte liñ may tuumal comme ni ma ko waxee ce sont des accusations inouïes aussi euh, inouïes hallucinant yoo xam ne teguwul ci dara lu dul nga toog sa bureau ne ok xaar ma xool lan laa koy toppee naa ko toppee lii moo tax d'ailleurs foog ñu ñaawluwaat li nga xam ne moo commencé am Sénégal muy la judiciarisation di débat politique au Sénégal mooy léegi yow boo waxee ne Macky Sall ni muy saytuwee gendarmerie dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey au lieu ñu tontu la ci argument pour wane ne yow li ngay wax du dëgg ñu jàpp la tëj la loolu mooy la judiciarisation du débat politique yow boo tuddee Karim Meïssa Wade nekk ci parti bu ñu woowee PDS nga nekk menace ci ñoom waaw ñu ñu jëfandikoo CREI mooy la judiciarisation du débat politique loolu la ñu def président Khalifa Sall loolu lañu def Ousmane Sonko waaw loolu lañ ma jéem a def euh, jamono ji passé waaye loolu itam dañ koy boole ak buntu xatal ak xoxatal yi ñuy def ñu ñuy woowee activistes yi ñu ñuy woowee révolutionnaires yi ñu ñuy woowee patriot yi waaye loolu yëpp ngir rek tëj seen gémmiñ loolu yëpp ngir rek tiital leen loolu yëpp ngir rek xoxatal askanu Sénégal ñuy wax nag président Macky Sall nous avons bien compris le message waaye yow itam président Macky Sall am na benn message boo xam ne foog nga comprendre ko xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ngir beneen Sénégal ci beneen Afrique duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg te tey la waalo gën a ay. Euh, loo si bañul rek ngir yàq Sénégal ñun duñ ko ci bañ ngir sàmm Sénégal ngir sàmm Afrique loo ci bañul rek pour am troisième candidature illégale et illégitime. duñ duñ ci bañ dara dinañ ci def lu ko raw ngir doo fi am une troisième candidature illégale et illégitime loo ci bañul rek ngir parrainer la mafia foncière dans ce pays ngir parrainer les trafiquants de foo billets comme Bougazeli loo ci bañul rek ñun duñ ko ci bañ ngir dénoncer ko ngir ubbi gëtu askan wi ngir taxaw temm ngir sàmm li nga xam ne moom mooy euh, suñu suñu réew kon dafa mel ni kon réewu Sénégal mooy réew boo xam ne boo waxee ne dañ ma agressé le 5 mai 2021 ca Niani ma déposé plainte ma waxaat leen ko le 28 mai tey mooy 28 octobre muy 5 mois jour pour jour boo waxee loolu ñu tëj la kaso boo waxee ne. convoqué nañ ñu début mois de juin boobu haut euh, commandant bi mu ngi santoon Tine gendarmerie convoqué ñu déglu ñu ñu teg ci fukki fan ñu changé haut commandant de la gendarmerie boobu ak léegi dossier bi avancé wul dara tous boo waxee ne loolu kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñu ne la jàpp la ne la ràpp ci kaso et pourtant ana Papis na suñu benn membre bokk FRAPP mu ngi tudd Souleymane Djib y mois de cela benn jigéen da ko accusé ne Papis da ko dóor déposé certificat médical ñetti fan ñetti auto gendarmerie ñoo jël si Papis këram yóbbu ko gendarmerie bu Wakam heureusement këru Papis dafa am vidéo surveillance vidéo surveillance boobu moo wane ne soxna si lépp lu mu wax dara nekku ci sinon papis kon tey mu ngi biir kaso papis bii nga xam ne 5 mai ca ñanin bokk na ci membre FRAPP yi ñu dóor toroxal am certificat médical de cinq jours ba léegi gendarmerie boobu waxul ndax am nañ dëgg am déet gendarmerie boobu jox nañ ko tur numéro téléphone photo vidéo nervi yi nga xam ne ñoo ñu agressé papis boobu ba tey dafa am lu ñuy woowee déni de justice maanaam gendarmerie dafa ne ñoo lànk ñoo bañ duñ la duñu wax yoon papis boobu moom la ñu naroon jàpp y a même pas un mois la même gendarmerie waaye léegi ñu ne loolu boo waxee ne ci doxalinu suñuy kuréel dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu ne la tentative de discrédit d'une institution de la République ñu ne la diffusion de fausses nouvelle ban nouvelle li ñu toroxal juróomi membre du FRAPP saaga leen xëpp leen suuf xotti seen yére bi ñu egsee Dakar ñoom ñëpp ñu dem CTO hôpital CTO man certificat médical cinq jours au lieu gendarmerie jéem a teggi tuuma mu traité suñu plainte d'accord Macky sàll jàpp ñu tëj ñu jàpp nag nag loolu nag doy na waar waaye loolu yëpp du général du général Fall président Macky Sall général Fall lu tuuti la ci lu ñuy wax général Fall. lu ñàkk faydale ci lu ñuy wax président Macky Sall mi nga xam ne moom muy buum di bumi muy justice muy gendarmerie muy police muy fu nekk président Macky Sall mooy le seul et unique responsable moom moo jël suñu institution d'accord mu euh, mu def leen euh, noonu beneen bi mooy ñun askanu Sénégal war nañ jàng ci li passé ne li jamono troisième candidature di gën a jege li deux mille vingt quatre di gën di jege Macky Sall di gën a jëfandikoo police gendarmerie ak yoon ngir dal ci kaw ñi nga xam ne jàpp na ne ñooñu ñoo mun a xajamal cere cerewam ñooñu ñoo mun a këpp suuf ci cere baakaar bi nga xam ne moom la bëgg a aakimu moom ak ñu mu àndal. waaye loolu lu muy tekki itam mooy président Macky Sall daf ñu bëgg a tiital ndaxte bu dee gendarmerie du institution c'est un simple corps nga wax ne corps boobu yow président Macky Sall ni nga koy doxalee kumba am ndey ak kumba amul ndey la mu jàpp la xanaa loolu mooy bu ñu waxee président Macky Sall toje toj tëj moom mandargaal saytu biram xanaa kon moom mi nga xam ne institution la bu ñuy lim ci constitution Sénégal xanaa kon boobu dañ lay yóbbu Guantanamo donc ñun nañu pare nañu pare ndaxte comme nuñ koy faral di waxee ñun waa FRAPP jooy fajul naxar jooy fajul naxar jooy fajul naxar mooy naam naxar bi am na solo naam di publier ci réseau sociaux yi am na solo naam di bind ci Facebook bi am na solo naam di xawma vocal ci WhatsApp ak ñoom seen ak TikTok ak Instagram am na solo waaye sël la lutte libère wax naa ko fi sànq 31 enseignants yi fi nekkoon fii ci siège FRAPP jël nañ leen bu dul woon xeex ful ak fayda kenn du leen jël moo tax d'ailleurs ñuy lancer un appel à tous les sénégalais bépp sénégalais bi nga xam ne am nga lu la métti ñu ngi lay noot na nga jóg taxaw bari ñu ngi lay tàllal loxo ñun ñëpp nañu ànd def benn say ngir xeex nguuru bàkkaar bii. ngir xeex nguuru Macky sàll bi nga xam ne toje toj tëj moo ko màndargal lii mooy li nga xam ne moom euh, euh, laa bëggoon euh, wax samay mbokk samay mbokk sénégalais yi wax ne kon xeex bi ñu daan xeex ngir li ñëpp bokk ñëpp yem ci xeex bi ñu daan xeex ngir ñu saytu saytu win bu mucc ayib li nga xam ne mooy suñu alal li nga xam ne mooy suñu Sénégal xeex bi nga xam ne moom lañ daan xeex ngir bañ troisième candidature président Macky Sall ndaxte constitution moo dàq président Macky Sall nekk candidat ñetteel yoon bu euh, bu tajlante xeex tey la waalo gën a ay ci xeex boobu ci xeex boobu nag askanu Sénégal mën nañ ci am yaakaar kuréel bu ñuy woowee FRAPP ci xeex boobu askanu senegal mën nañ am yaakaar ci ki ñuy woowee Guy Marius Sagna waaye nag ah, a FRAPP moom rek mënul xeex xeex bi mu mënuñu jël xeex bi dëkkale ko ci yenn mbootaay yeneen sénégalais yi toog di seetaan ndaxte nañu xam ne bu dee tey faatu ci moom la ñu dal duudu toog seetaan suba duudu moo ci topp daf may indi ma euh, wane sama solidarité euh, wax sama naxar euh, sama sama naxar sama métit ci li nga xam ne mooy raam liggéeykatu des médias Euh, démb man la woon tey ñoom la Bougane def na deful fay na fayul pour man loolu débat bi loolu débat bi mooy yow état du Sénégal war nga fàttali ko ne chaque année au Sénégal il y a trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yoo xam ne trente mille emplois donc nga leen di proposer ay père mère ak soutien de famille ñu ngi liggéey des médias te loo munti def war nga sàmm comme munoo créer trois cent mille emplois pour les trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d' emploi yuy am chaque année sur le marché du travail au Sénégal lu dul nga jox leen trente mille emplois na nga sàmm kon emploi yi nga xam ne moo xas ba am donc nous exprimons toute notre solidarité aux, aux parce que les journalistes on a tendance à l'oublier les journalistes sont des travailleurs sont des pères, mères et soutiens de famille et que ñun ñëpp dañoo war a def benn say ndaxte ce qui mooy ay baayu jàmbur ndeyu jàmbur nijaayu jàmbur bu ñu moytuwul ñoo nar a ñàkk seen xëy ak seen gont ñoo na a ñàkk seen payoor waaye bu weesoo loolu ce qui est en jeu aussi c'est la liberté d'expression la liberté d'informer et la liberté d'opinion mooy ligne rédactionnelle bu des maanaam li ma yóbbu kaso loolu euh, mooy euh, mooy mooy li jur jafe-jafe bi am ci des médias donc euh, loolu moom laa bëggoon wax waaye wane ne itam. maa ngi rafetlu li nga xam ne moo am jamono ji ci réew bu mel ni Mali réew bu mel ni Centrafrique yi nga xam ne askan ya fa nekk ñu ngi jéem a wàññi dangaru France ci seen réew jaarale ko ci li ñu mën a woowee multilatéralisme te muy feebar jamono ji njiitu France coowal xawma Russie ak ak xawma kan du leneen lu dul France dafa xam ne Mali ak Centrafrique ñu ngi jëfandikoo benn ngànnaay bu ñuy woowee multilatéralisme maanaam fexe ba France bañ a nekk moom rek ki nga xam ne mooy buum di buumi suñu réew nañu xool naka la ñuy yaatalee suñu demlante ak yeneen réew yi ngir wàññi dangaru France ñu jàpp ne yeneen réew yi war nañ xëy na xool gëstu ci li xew Mali ak ci li xew Centrafrique waaye tamit jàppale leen waaye itam di wax ne fële ca Guinée euh, war nañ gën a góorgóorlu gën a góorlu ngir mu am ay kuréel yoo xam ne doomu Guinée yëpp ànd nañ ci góor góorlu ngir ñu fexe ba jiital FNDC bi nga xam ne ñun àndoon nañ ak moom fii ci Dakar di organiser ay manifestation ndaxte FNDC ñi nga xam ne tey ñoo def coup d'état bi jamono ji nga xam ne ñoo doon dóor. di boom guinéen yi doon xeex troisième candidature Alpha Condé FNDC moo doon jiite xeex bi kon tey jii nii bu ñu buggee am beneen Guinée mënuñu bàyyi FNDC ci ginnaaw donc jiital FNDC ci euh, naka la ñuy fexe ba am ay kuréel yu bees yoo xam ne euh, doomu Guinée yépp ànd nañ ci waaye itam waajal ay élections yoo xam ne foofu ca Guinée Euh, yoo xam ne ay élections yu kenn dul dàq la ay élections démocratiques militaires yi dellu ci caserne yi wa euh, neenal ci Guinée waasoo bi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci wàllu politique bi ndaxte dugal waasoo ci wàllu politique day féewale askan day yàq askan te ku xam li xewoon Côte d'Ivoire ak Rwanda war nga ragal réew mu mel ni Guinée ak bépp réew ci Afrique ba ci Sénégal ñuy jëfandikoo ci wàllu politique ñuy jëfandikoo mbiru waaso naan fal leen ma ndaxte man lii laa waaso bii laa bokk wala bokk euh, diine bii laa bokk wala tarixa bi laa bokk donc nañu wàññi danga nañu dindi mbiru waaso ci euh, mbiru waaso ak mbiru région ci wàllu ci foofu euh, ci Guinée ba pare fexe ba Guinée moom boppam ci fànn yu nekk gine bokkul franc fa bu waa ginee toog di xoole ba ñu ne leen kaay leen dugg franc CFA Guinée Bissau bokk na franc CFA waaye Guinée Conakry bokkul zone franc waa Guinée bu ñu sàggan ba ñëw naan dañuy dugg franc CFA fu mu nekk nii li war mooy génn francais fa et non dugg franc fa waaye tamit waa Guinée la ñu fexe ba auditer les contrats au niveau en fait euh, les contrats miniers ak yeneen contrats yi ngir euh, fexe ba xam kan moo luubal ak kan moo def ay ñaawteef ñi def ay ñaawteef ñu sanctionné leen jafe-jafe Afrique kenn du ko waxtaanee France jafe-jafe Sénégal lañ koy waxtaanee Afrique lañ koy waxtaanee jafe-jafe Afrique kenn du ko waxtaanee ak doomu France ak bépp doxandem bu nekk ci àddina bi jafe-jafe Afrique africain yi ñoo ko war a waxtaanee seen biir France toog fële. lijjanti seen gilet jaune France toog fële lijjanti xaw ma seen 3 millions de chômeurs yi France toog fële lijjanti seen 600 euh, juróom-benn téeméeri béykat yi xaru at bu nekk France toog fële lijjanti seen lalu hôpital yi manqué yi les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique et entre les Africains et non en France.